ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di baalu ak ñëpp di baalu ak ñëpp di leen dokkeel ci bis yu tedd yi nga xam ne moom la ñu nekk te tàmbali ko kero alxam kero alxames wala kero tala alarba muy bis yoo xam ne bis yu rëy la ci suñ borom te xam nañu ne dundug doomu adama dafa gàtt rawatina nag xeetu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam aw dundam dafa gàtt lool ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñu wax ne képp koo xam ne ci ci xeetu Seydina Muhammad nga bokk bu la suñ boxee bu la suñ borom joxee lu tolloog juróom-benn fukki at rek xamal ne wàccoo na ak yow kon mu mel ni dund gi nga xam ne moom la dund see xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di dund dafa gàtt lool bu ñu ko comparé xeet yi nga xam ne moom ñoo jiitu woon xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax bu ñu waxee rek ne ku mel ni ku mel ni Seydina Noox mi nga xam ne moom lañ yónni woon te ba mu tàmbalee yónnent ba woot sax na ca ñam doon woo lu bat junni at yoo xam ne juróom fukki at moom la manqué kon mu mel ni ñooñu dund gi nga xam ne moom lañ doon dund bari woon na bari waan boo bariwaay boo xam ne wuute ak dund gi nga xam ne moom la xeetu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di dund muy dund gu gàtt lool loolu nag tax na sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam amoon ñeewantu lool ci xeetam bi bëgg lu leen doon aw yiw ba tax bañ ko nettalee la nga xam ne moo xewoon ci ki nga xam ne dafa am juróom juróom ñetti fukki at yoo xam ne lépp da ko daa xaree ka woor mu loola mu yéene woon ko xeetam ba tax yonent ba tax suñ borom ci baaxam defal ko ay defal ko lay weeru koor defal ko ci laylatul xadar mu mel ni kon tax na nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëggaloon xeetam wi xew yéen xéewal gu yaatu ba tax na suñ borom tam jox na ko ay bés jox na mel na ni defal nañu ay promotion yoo xam ne yu rëy la ci su ci kaw suñu dund promotion yooyu nag bokk na ci fukki fan yi nga xam ne moom lañu nekk muy fukki fan yi nga xam ne mooy fukki fukki fan yi jiitu yi tàmbali ci weeru tabaski bi ba keroog tabaski ba yooyu fukki fan yooyu dafa rëy lool ci suñu borom ba tax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñu nettali ne suñu borom day kenn mënu koo defal jëf ju baax jum yoo xam ne dana ko bëggee comme ni mu koy bëggee ci fukki fan yi nga xam ne mooy fukki fan yi tabaski loola nag ba mu ko waxee saxaaba yi daaj koy laaj ne ko waaw ndax jëf ju baax joojee nga xam ne moom la suñu borom bëgg ñu defal ko ko te gën koo bëggee ci fukki fan yu fukki fan yu yi nga xam ne ñoo fukki fan yu tabaski bu fekkoon ne nag kooka dafa jógoon keneen dafa jógoon dem xare ji ngir yàlla joxe boppam ndax jëfam jooje suñ borom dana tolloog la nga xam ne moom la keneen ki di def de jullit bii def ci fukki fan ak fukki fan yi tabaski yi ndax dana tolloog mu ne ko loolu day doon tey dafa jóge woon joxe boppam ngir jihaat ci yàlla itam du tolloog loo xam jëf ju baax joo xam ne yaa ngi koy def ci fukki fan yi tabaski yi loola nag mu ne yonent bi sallallahu wa sallam na xam le ne bam bam ne bañ ne ko ba mu bañ ne ko ndax jihaat koo jihaat ci yoonu yàlla jëf jëm yi def dana neexee suñ boroom comme jëf ju baax joo xam ne yaa ngi koy def ci fukki fan yi tabaski yi mu ne leen déedéet lu dul koo xam ne nag dafa jóg jihaat yi yóbbu alalam yóbbu bakkanam te dara dellusiwaatu ci kooku rek mooy ki nga xam ne mën nañoo wax rek jëf na jëf ju rëy rëy yonente bi sallallahu alayhi wasallam delluwaat di wax ne amul yenn bis yoo xam ne dana màgge na te yàlla bëgg ci ku ko jaamu comme ni nga xam ne ni la ni la ko bëggee ci fukki fan yi fukki fan yi yi kon nag am na lu ma leen di digal ngeen baril ko ca mooy na ngeen di bareel di wax laa ilaha illa allah di baril di wax itam allahu akbar di wax di baril di wax itam walilahi alhamdu am ahadis boo xam ne sayidna abbas moo nu ko nettali wax ne ibnu abbas moo nu ko nettali ci ci yonent ci waxi suñu borom ji nga xam ne moom lay wax ne wa yadkurullaha fi ayamin maalumatin mu ne bis yi nga xam ne moom la suñ borom wax ne nañ ko ciy fàttaliku ci bis yoo xam ne bis yu ñu xam la nee na bis yooyee lam ci jublu mooy fukki fan yi tabaski yi kon ñu jëlewaat beneen tim ci hadis boo xam ne mu ngi jóge ci ibnu ibnu orayra abi orayrata mu wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne amul yenn bis yoo xam ne yàlla bëgg na ku ko ca jaamu defal ko ca lu baax comme ni mu ko bëggee ci fukki fan yi nga xam ne fukki fan yi tabaski ndax nee na kat boo ci wooree benn fan dafay mel ni da ngaa woor am at ba mu mat boo ci taxawee génn guddi la dafay mel ni da ngaa taxawee laylatul xadar te xam nañ ne laylatul xadar suñ borom da koo lëm kon mu mel ni nag fii moom fan yi leer na ndax fukki fan yu njëkk yi la mu mel ni kon dafa mel ni dafa wax ne nag ne fukki fan yii boo ci taxawee boo ci taxawee di la ngir suñ borom dafay mel ni yaa ngi taxawee laylatul xadar bokk na itam ci li nga xam ne bëgg nañ ko ci bisu bisu ci fukki fan yii ñu ciy faral di wax allahu akbar maanaam ñu far ñu far di ci ñu faral di ci ba di ci di ci kàbbar loola nag suñ borom moo na ko wax ci aay yu bëree bëri bokk na ci aay yi nga xam ne fi la ko waxee mooy waskurullah fi ayamin maadudat ak xawul ak beneen aaya boo xam ne wax na ca suñ borom wax na ci ne kasaalika saxarnaha lakum li tukabbirullaha ala ma hadakum loolu nag ñu bari ci borom ñu bari ci borom xam yi ni ñu ko firee li tukabbirullaha ala ma hadakum dañoo wax ne lim ci jublu mooy fukki fan yi tabaski yi kon mu mel ni takbir yooyu nga xam ne nag moom la suñ boroom bëgg ñu def ko ci fan yi tabaski yi muy fan yi nga xam ne moom la ñuy tuddee ayaamu tasriix nee na bu ñu ko bëggee wan waxtu lañ koy tàmbali di wax allahu akbar yi nee na ñu ngi koy waxee ci bu ñu xas xasee xëy ci bisub bis bi nga xam ne mooy bisub tabaski bi ba bisu bukki fukkeelu fan baak benn fukkee fa fukkeelu fan baak ñaar fukkeelu fan baak ñett muy ñooy yi nga xam ne moom lay tuddee iyaamu taswix bis yooyu lañu bëgg koo xam ne danañ ci danga ci faral di wax allahu akbar mu mel ni nag wax allahu akbar joojee danañ gis na ñu bari dañ koy def ci ginnaaw jullik farata gu nekk dañuy toog def ko waaye nag wax ndoolee day doonul loo xam ne danañ wax ne moom mooy lekk li war a nekk waaye dañ koo soxtu dañ koo sopp nga di ko def kabbar yooyu ci waxtu mu war a doon nan lañ koy defee nag mooy am na loo xam ne Salmaan moo nu ko nettali ci wax nan lañ koy defee am loo xam ne ibnu amar maanaam Omar ibnu Abd Omar Omar ibnu Xataab ak ibnu Mas'ud ñoo nu ko nettali bi nga xam ne moom lañu Salmaan nettali dafa wax ne dañooy war a wax ne allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabira mu mel da ngay wax allahu akbar ñetti yoon tëjee ko nag kabira bu dee Omar nag mi nga xam ne da daa def bu bisu tëbës bu fukki fan fukki fan yi nga xam maanaam ci ayam tasix yi li ci daa def moo Ibnu Mas'ud da daa génn dem ca marché ba bu ñu génnee ci marché bi nag am na takbir yoo xam ne moom lañ daa def ngir bëgg nit ñi dégg ko ñoom di ko def loola nag mooy allahu akbar allahu akbar ñaari yoon wax laa ilaha illa allah wallahu akbar allahu akbar walillahi alhamdu mu mel ni kon yi nga xam ni moom la yonente bi sallallahu alayhi wa wax ne nañ koy bari ci bésu bési yi nga xam ne moom la ñu tudde bis tabaski yi mooy bis yi nga xam ne moom lañuy tuddee ayaamu tasrix ci wax ne nañ ci bari di wax tahlil ak takbir ak tahmid mel na ni lii nga xam ne moom la Omar génne ak Ibnu Abbas bi moom matalee na loolu ndax wax na allahu akbar allahu akbar ñaari yoon teg ci laa ilaha illallah mu mel ni allahu akbar ñëw na tahlil ñëw na wallahu akbar allahu akbar walilahi alhamdu mu mel ni itam tahmid ñëw na kon mu mel ni li nga xam ne moom la suñu borom bëgg ju di ko def ci fan yi dënkal nañ ñu ko ci wax ju mel nii muy allahu akbar allahu akbar ñaari yoon laa ilaha illa allah wallahu akbar allahu akbar walillahi alhamdu mu mel ni nag loolu doonul ne daa dafa doon loo xam ne rek comme ni ñu ko waxee da ngay da dañ koy defandoo ci ginnaaw julli yi farata yi loolu baax na sax waaye nag kenn ku ne waxtu wu ne mën nga koo defal sa bopp waxtu wu ne foo nekk itam mën nga faa defee mu mel ni kon ñëpp ci yem kon ñi ngi ñaan suñu borom mi nga xam ne mooy borom kattan te mooy borom ndimbal te ba ba tax mu defal nu xéwal gu toll nii. ci fan yii nga xam ne moom lañu nekk ak fan yi tabaski yi fa mu defandu ci xéewal gu rëy gu toll nii te loolu lépp xee yërmande joo xam ne am na ko ci xeetu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te yërmande joojee mi ngi jóge ci yërmande si yonent bi sallallahu alayhi wa ci xeetam bi ndax bi nga xamee ne suñ borom wax na ci alxuraan di xam leen ne isaa bu bu ëllëgee suñ borom dana ko taxawal wax ko ne ko ndax yaa waxoon ji nga xam ne ñoo ñoo la topp ne leen na ngeen ma jaamu jàppe ma yàlla mu ne leen mu ne suñ boroom man day waxuma ko ndax li li ma li ma nekk woon xam nga ko bi ma fi jógee itam li fa nekk xam nga ko kon ñii nga xam ne ñoo doon wax ne maa leen wax lii te loolu te loola doonul lu ma leen wax say jàmm lañ bu la neexee nga mbugal leen bu la neexee nga jéggal leen bi ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngee nag moom dafa dafa daal di jooy wax ne daal di daal daal di wax ne samaw xeet samaw xeet ndax lii nga xam ne moom la Seydina Isa wax ci ne ñii say jaam lañ bu la neexee nga mbugal leen bu la neexee nga jéggal leen moom njéggal la bëggal aw xeetam yërmande la bëggal aw xeetam moo tax mu jooy ba mu jooyee na borom xamal ko ne ko du la def mukk lu la naqari ci saw xeet kon mu mel ni xéewal yi nga xam ne moom la ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la suñu borom defal da koo def rek ngir yërmande ji nga xam ne moom lay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am ci xeetam wi te yërmande joojee mi ngi jóge ci ni nga xam ne ni la ko suñu borom yónnee wax xamal ko ne ko wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin yónniwuma lu dul nga nekk yërmande yërmande joojee nag moom dawal na ko ci aw xeetam dawalin wu leer nañ bu feeñ bu feeñ bu baax a baax kon ñi ngi ñaan suñu borom mi nga xam ne mooy borom yërmande te mooy boroomu njëggal te mooy borom kàttan yërmande joojee nga xam ne moom la sayyidina muhammad sa alayhi wa sallam amoon ci xeetam wi yàlla nañ ko suñu borom defal te defal na ko lu kawe suñu jot loolu suñu borom mën na ko jàpp na ko ñi ngi ñaan suñu borom ba tey ji moom mi nga xam ne mooy borom kattan te mooy borom man Cheikh Mamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi nekkal seex Cheikh Ahmadou Bamba te yor ay yéene yu rëy yor ay bëgg-bëgg yu rëy te lépp jëmalewu ko lu ci liggéeyal yonent ak liggéeyal Cheikh Ahmadou Bamba ci ci ci yoon wi loolu suñ borom dimbale ko jox ko kattan jox ko ak dund ak wér ba ni nga xam ne ni la ko yéenee mu defee ko te defe ko nu kaween njortam te bañ cee daje bañ benn pakk ak benn ndog te ñu ànd kook moom te daje ci ngërëm li nga xam ne moom la ci sàkk moom itam muy ngërëmul sëñ Tuubaa ak ngërëmul suñu borom yàlla nañ ko suñu borom defal yàlla nañ suñu yërëm yàlla suñu borom taxaw rawatina nag fan yu tedd yi nga xam ne moom lañ nekk nga xam ne nañ nañ ciy baril ay njégglu nañ ci bor nañ ciy baril tudd yàlla nañ ciy baril sàbbaal suñu borom mel ni li nga xam ne mooy li ñuy tuddee baaxiyaatu saalihaat boo ko defee day mel ni li nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne nañ bëgg dafa bëgg ñu di ko bare ñu di ko bareel ci fan yi day mel ni def nga ko ndax boo nee subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar yokk nga ci sax subhanallah joo xam ne ñëwut ci li nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne nañ koy bari ci fan yooyu suñ borom nag mi nga xam ne mooy borom kattan yàlla nañu dimbali ba lii nga xam ne moo ubalee àdduna si te jaaxal ñëpp te moom képp boo ci man dara ndax ñun munuñ ci dara ndax la ngay xeex dangay xam fa mu nekk war a nga mën koo teg bët loo tegul bët nag xamoo fu mu nekk boo ko dee xeex ay pexe da ngay jéem rek kon munoo ci dara da ngay jéem kon comme dangay ngay jéem nag suñu borom mi nga xam ne moo man te moom du jéemantu ndax moom sax du jéem daa daa man kon suñu borom moomu mi nga xam ne mooy borom yërmande tey borom te te lépp loo te moo gën a yërëm doo jaamam ñi ci ci seen i wayjur ci seen ndey ni ni ni ni ni wayjur ni wayjuru jigéen di yërëme doomam suñ borom moo gën a yërëm ab jaamam ci wayjuru jigéen kon nag moom moom mu nga xam ne mooy borom yërmande te yërëm nu yërëm yërmande ju toll noonu yàlla nañu dimbali ba lii nga xam ne moo lakkal doomu aadama yi te mënuñ ci dara lu dul dañuy jéem rek ndax xamuñ fu mu nekk mënuñ koo teg bët doo mënut a teg bët bu noo xamoo fu mu nekk rek xeex ko yaakaar naa ay pexe rek ay jéem rek la waaye doonut ay pexe yu wér yoo xam ne da ngay wax ne fii laa jaar kon nag moom mi nga xam ne moom moo ko moo ko fi mën a jëlee yal nañu ko fi jëleel te dindi ko ba mu set wicc rawatina ci bis yi nga xam ne moom lañ nekk te mu bëgg koo xam ne danga ko ci jaamu te xam nañ ne jaam ak ñaan mu bokk na ci jaamu yàlla yi gën a rëy jaam ñaan suñu borom bokk na ci jaamu yàlla yi gën a rëy kon nag ñu ngi koy ñaan moom mi nga xam ne mooy borom kattan te mooy boromu man mu dimbali nu ba lii nga xam ne moo ubale àdduna mu jëlee ko fi ci jëlin woo xam ne dafay jeex tàkk jëlee ko ci àdduna sépp loolu suñ borom mën na ko jàpp na ko yàlla nañ ko defal rabbana innana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarxamna lanakunanna min alxaasirin rabbana la tusi xulubana baada is hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka anta alwahab rabbana atina fi dunia xasanatan wa fi alaxirati xasanatan wa qina adaba annar rabbana innana samina munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faxfir lana dunubana wa kaffir anna sayiatina wa tawaffana maa al abrar rabbana wa atina ma waadtana ala rusulik